Idrissa Seck yaakaar naa ne du xale ci politique jàpp naa ne teel naa dugg ci politique lool ndax nekk na directeur u campagne u Abdoulaye Wade boobu yaakaar naa ay atam néew na lool ci école wàdd école libéralisme ca la nekk ay at bu demee ba tey ñu jóge ci ay élection mu jël deuxième ñu toob ak diir mu dugg ci gouvernement bi nga xam ne duggoon na ci ci élection yee ñu weesu bu buñ leen ko fàtte 2012 duggoon na ci gouvernement bi un an après mu génn ci dellu soit na 2020 ñii di ko xarab xëy na am na ci ñoo xam ne Macky Sall lañ contre bu sañoon du ànd ak moom ñii di ko apprécier xëy na Macky Sall moom mooy kilifa gi nga xam ne moo am sañ-sañu tànn ku ko neex mu def ko lu ko neex moo ko tànn ñu àndi ceeg moom ñaari camp yooyu rek ci nekk waaye nag ñaari mag ñu xam ne nii kenn ku ci nekk kàngam nga ci wàllu politique buñ demee ba jël décision bu mel nii ah, yaakaar naa ne liñ ci mën a jàngatee bëri na te yaatu na. askan wi ñoo fi nekk di sonn di sonal seen bopp nañ toog tey seen i carte waa élection jotee buñ xooloo buñ xeex ñu dem daal di wateel kañ war a wateel jeex na amul xooloo amul xeex. ñoom ñëpp weer lañ ñoom ñëpp weer lañ amuñu réeroo amuñu xajaloo ñu askan wi nag ñun ñoo ciy sonante rek. Idrissa Seck dañoo bett lool ndax man yaakaaroon naa ne wax yi mu fii jot a waxoon yëpp tey jii bu ñëwee mu ne day dugg si gouvernement maaw bees bi loolu moom ñun rafetluñu ko. ak li mu fi doon wax lépp rawat na démb li mu doon wax daanaka ngeen baal ma ko waaye du wax ju xaw a teggi ne ndax naan ay wàllum corona geeg yooyu noonu moo tax ma lii rafetal te moom moo fi ne wax ne poste bi nga xamante ne nii fal nañ ko ko tey ay jamono doon na fi wax naan bu ma toogee président dama ko fiy jëlee tey mu dem ba ba ba toog poste boobu noonu loolu moom. rafetlu nu ko. bon man moom béttu ma woon ndaxte donte yaa 3 mois 6 mois yooyu ci ginnaaw ñu ngi doon laam-laami lu mel noonu te it Idrissa Seck nag dafa nekk nit koo xamante si maanaam du juum ci politique ndax lu mu def rek xam na ko te maîtriser na ko. leneen lu yees di ci am nag moom Sénégal nag maanaam lu bees lañuy bañ a gis maanaam lu bees maanaam mooy Idrissa jóge na fee rek nekkoon na opposant ba ci yàgg rek mu ñëw rejoindre Macky Sall loolu surprise lay nekk ci nit ñi mais man de personnellement nekk loo xam ne moom béttu moom ca kanam ngeen xam ne lu bëri la ko indil ci politique. Euh, ndamba ngi ci gàcce ngi ci ndax it nag munoo di opposé wu opposition du ay at ñaata at yombul yombul aussi parce que du tout le temps ngay génn rek di nekk ci léegi nag am nga tuuti xam-xam mën nga koo jëriñ réew mi am nga tuuti expérience mën nga koo jëriñ réew mi am na akal mi mën ngaa ñëw te lay na ko ay layam ndax nee na situation réew mi ko laaj. mais xëy na tamit nañ nañ rafet jot ci ay xalaatam jàpp ne xëy na li mu xam akus néew jaadu na mu indi ko. Macky Sall dafa euh, xarañ lan moo tax mu xarañ dafa am ñu koy xelal sur le plan politique man loolu laa jàpp depuis mu falu am na ñu koy xelal. parce que boo seetee deuxième mandat bi mu brigué stratégie politique bi mu teg ba am deuxième ngay xam ne am na ñoo xam ne am nañ xam-xam ci politique ñooy xelal parce que xoolal. sa Seck kii Tanor Dieng la njëkk a mu am presque 13 pour cent ci eh, eh, kii élection Sénégal moom 13 pour cent lay pesé mu téye Tafa Niass nga xam ne dix 17 pour cent lay pesé ci électorat Sénégal mu boole ko ak li mu amoon kon day am majorité absolue loolu la ñuy wax majorité mécanique ci majorité mécanique boobu aussi la nekk bu dem jëli sa Seck parce que am na moo moo nekkoon deuxième ci élection yi passé donc loolu il faut mu dem lijjanti ji majorité boobu parce que kenn xamul ndax dafa bëgg a briguer troisième ou non. ba Sénégal dañoo war a dépassé fu ñu naan kii sama ennemi la wala sama lii la Sénégal lañ wax néewuñu Gambie néewuñu Mauritanie non opposition mën naa am mais mu rafet waaw mais niñ bëgg a diaboliser wàllu opposition moo dul yoon opposé boo dee opposé rek loo xamal nit ki ci lu baax da nga koo war a wax mais fi doon nii li ñuy mooy lan sa yu bon rek laay génn di la ko xëpp. am kenn ku ne na am fulla da am fayda rek bu bu bu joxatee carte joxe carte joxe nga xoo taxaw ba xam fi nga ko yóbbu nga dugal ko fa te bàyyi ñii nga xamante ne bi dañuy ñëw naan cinq mille ngi dix mille ngi nangam nangam cinq mille dix mille yorut kenn cinq nit. Idi bu ñëwee bu ñëwee nekk ci kawam otoom naan man Touba laa bokk ba waa Touba gépp maa ko wooteel ko jox ko suñuy carte dégg nga ñu yelwaan la ñuy yelwaan ba bari mu jël ko këpp ko jébbal ko Macky idi idi war na affaire bi dafa war affaire yi waaye boo léegi ñun bu ñëwee suñu carte nañ def kon koy li mooy wote leen Macky Sall benn yoon rek parce que woo yow da ngaa ñëwoon di combat ak Macky nga ñëw nga eh, nga nër ñu gis la ci pot jox la xaalis ne la yow eh, eh, nii nga ñëw woteel Macky dem jël ni ñuy wote woon lépp nga jël ko jox ko Macky idi dafa war affaire yi idi waroon nga ne ko teel a yëgal bu ñu xamoon ni kay doxee doon na ko jox. ñu gis ne il y a lu yàgg Idrissa Seck waxul deful. ñu gis yenn saa yi mu am ay ndaje ak Macky Sall boo seetee couvre bi bu mu commencé Macky Sall recevoir na ko donc kooku kon kon am nañ ñun ñaar ñoom ñaar lu ñu waxtaan loo xam ne kenn yëgu ko. dafa am yoo xam ne nit ñi dañ koy faral di fàtte man fii ci réew mi laa déggee ñuy wax ne xaw ma loolu sax nuñ koy làkkee ci tubaab politique du ëmb day xëy wasin fii da laa ko déggee nit ñi di wax kon jàpp naa ne euh, ak it di xarab. contexte dafay am jàpp naa ne lii ñuy wax di ko indiwaat ci lu yàgg ba tey contexte ya nga xam ne moo taxoon ngay wax te kiy wax mën nay juum ci ay waxam ndax nit ci li ma xalaat du wax jamais te dégg naa ñiy politique di wax it ne politique moom kenn du ci wax jamais contradiction day am bu fekkee ne kenn du ci wax jamais te nga mën a toog di wax ne man de nangam duma ko def jàpp naa ne xëy na seeram mooy tàng ñu tàllal la micro ak caméra yi nga wax ba wax lu xaw a ëpp tuuti waaye nit mën naa wax li mu bëgg tey waaye lay xew suba moo mënu koo xam. dara ci politique politique boo xamee fi yoon bi ngay jaar rek mën nga mën wax tey ëllëg nga changé ndax boo nee nag du ma def tey suba damay waxal non loolu politique. non non ba tey ndax conviction yi ak distance ak li ngay li ngay wax jamono yi muy toll ak bu tey bi dootul bokk ndax ba muy wax loolu am na maa ngi seetaan yu bëri ci sur le muy daw mais yooyu ci circonstance ba mu tolloon. ak par rapport ak léegi nag dafa bokk. fii gouvernement Senghor son les mêmes personnes ñoom ñooy ñoom ñoom ngay gis ñuy teewaat amul benn changement lan moo fi changé peut-être ñii ñoo màgg fexe ba seen i doom yéeg ñun ñun ñoo ñun seen jëmbam ñoo wayati ñun population Sénégal ñoo wayati ñun ñooy nangu rek à chaque fois ne kii nekkoon na président doomam mooy ñëw doon président loolu ba kañ. kii doo doomam ba baadoola la moom na xëy nekk ci tool yi di bay doonu baadoola ba faw kii nga xam ne moom baayam moom président la woon wala nekkoon na gouverneur na doon gouverneur loolu ba kañ. ci lu bëri bëri gisoo tey na man damaa gasax tey damaa man sekk laa sant tey dama dama dama damaa wàcc man kay Touba rek la mos a dëkk waaye nag moom xam naa ne sekk moom kay du ma jë du ma dawati jëm boori Thiès nii lay jëm ay Darou Mousty ki Louga ki Ndar noonu laa def waaye Thiès dootuma fa jëm pare naa ci Thiès Idrissa rek. yàq na lépp li ñu doon li ñu doon euh, defar lépp yàq na ko moom koy léegi Sonko rek Sonko waaw. Ousmane Sonko moom mooy le seul opposant sénégalais boo xam ne man am naa ci moom un peu de respect li tax man ne un peu de respect parce que toujours mu ngi opposé wu te mu ngi wone ay idées te mu ngi arbitré mu ngi xool. te gis nga li ma gëm man Touba moom Touba ci jëmmi boppam moom bi ñu tàmbalee di compter ci gouvernement ak ci état. la ñu manqué yu bëri Serigne Touba sëñ Modou Moussa nekk nañ fi ak état colonial moo am doole lool te mosuñoo compter ci ñoom dañoo mos a demal seen bopp. kon du nekk ci gouvernement wala ñàkk nekk ci gouvernement mooy tax lii nga xam ne moom lañu ñu manqué Touba ñu di ko am tubaa moom li koy defar mooy mu ngi fii ci tubaa ca kanam gouvernement tubaa ca kanam daal na waa Touba jëpp fexe dugg ci waaye gouvernement beneen gouvernement beneen la